dal leen a jàmm bàyyi sa waar ba mu sës ca ñag ba daal ndam la waaye te di sàggan ba liiraam jiitu la ca ñag ba ba màtt fa nit gàcce la lay jural ndax naka fu màtt-màtt ba yegg sa tur dina fa yegg te boo moytuwul sa der du fa farafet derup Masata Sàmb ak du Ñanga tàmbali naa yàqu ndax daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñépp ci seenu der lan xëy di wax L'Observateur ne ñoom ñaar yoon ñooñe agressé woon Ami Njaay ñibbi kay ñoo ngi ci danger journal bi ne la tax ñu wax ko moo di ne bu Ami Njaay ñibbi porté plainte Masata Sàmb ak Mamadou Ñanga kaso lañ jëm ci ludul am mbalaanum kiir laay ndax flagrant délit la ñu def beneen bi ci des moo di Ami Njaay ñi dafa wann lor ëmb bu toll ci juróom-ñeenti semaine liñ ko weq ci biir moo tax bu yéenekaay bi nee na jamono ji moo nga tëdd ca hôpital principal su su aane tout tànk ba mu ëmb kay moo ngi ci danger las moo tax bu jigéen ñi fare ci APR mer ba futtu lañ def ne ñoom faaw ñu porter plainte ndax lii dafa ñaaw journal L'Info ne dëgg moo am ci jigéen ñi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ak jigéen ñi fare ci coalition Yewwi Askan Wi ku brigade seen naataango bi di Ami Njaay ñi bi dañ koo toroxal fitnaal ko ci kanamu àdduna waaye yeewi askan wi ne góor ak jigéen ñi fari ci Benno Bokk Yaakaar dañoo ëppal mel ni ñoo moom nit ñi ba noppi yokk ci ne lii nekkul mbirum jigéen waaye diggante ñaari député la Birahim sekk ci Vox Populi ne ñaari député yi fari ci yeewi askan wi waxuñu leen dëgg te li ñu def ñaaw na ba fa ñaaw yam jigéen yi yeew yi ne rokki mi rokkaan la waa Benno Bokk Yaakaar ne bile yoon dina wuute les éco ne mbir mi kay ci indignation nationale la mujjee ñëpp bokk ñaaw lu kurpañ ak weq wi ñu def Ami assemblée nationale ne lii moo merloo waa Benno Bokk Yaakaar te nag kenn mënta yendu ci njombe fanaan ci kaasa kaasa mën a tekk xawsu ci anglais Angleterre la Sénégal di footballal suba ci dimanche yi ci huitième de finale ci coupe du monde bay xew ca Qatar le quotidien ne match bi bataay lay doon enquête yéen kaay ne buñ ci amee ndam dugg ci taarix bés bi la jour ne am nañ ci yaakaar waaye nag faw Aliou Cissé mi leen di tàggat tekk ñett ñoo xam ne ñooy nekk ci milieu terrain bi te ay xeexkat dëgg la ñuy doon ngir mën a baare anglais yi Sud du quotidien mooy xaar gaynde Aliou Cissé yi ci seen diggante digganteeg Angleterre enquête yéen kaay ne tëggum dëndëkum semmiñ lay doon neex benn naqari benn journal record ne fii la gaynde yi naree jaar bindaat seenu tur ci taarix tribune yéen ne lu mën a nekk la li nekk bés ni démb moo di Serigne Bassirou Gueye mooy jiite OFNAC l'observateur ne démb la ko njiitu mi di président Macky Sall tabb ci décret journal Uri Angle Corniche bi yokku ca ne Seynabou Ndiaye Jaxate la fa nar a wuutu enquête ne ki fi nekkoon cee voirie non classée bu mairie bu ndakaaru libération yéenekaay mi joxe xibaar bi ne ci atum 2021 la woon Soham El Wardini moom lañ ca tudd yéenekaay bi ne cabinet Mamina Camara sàkku na ci ARMP mu ubbi cib enquête enquête bi cour suprême doon def ca miir bu déndoori daanu na libération yéenekaay ne Cheikh Amar moo am dëgg ci kaw préfet bu Kanel liy dëgg kay moo di roi des arènes di Modou Lo moo ngi bëgg lab ci géej gi sunu lamb yéenekaay ne Modou Lo keroog ba mu déggee daali nekk roi des arènes ba léegi ca la gëjee sëgg bëre yéenekaay bi Modou Lo diir bi mu toog benn roi des arènes mësu koo toog te bërewoo eh, gëna a siiw bokk na ci football jëm ci wàllub mondial 2022 tey ji kon Sénégal Euh, di laal ak Angleterre tey ci dimanche bu 19 jotee lay doon ku ci gagné rek war a mën a dem fële ca quart de finale yi Idrissa Gana Gueye moom nag du bokk ci bi lépp laale milieu terrain boobu dafa am suspension ñeel huitième de finale yi lee ndax cumul de carton ana kan moom moo mën a remplacer moom milé di Idrissa Gana Gueye si match bi dox diggante Sénégal ak Angleterre euh, li nga xamante ne mooy réponse bi tontu gi ñu teewlu ko ci reportage Sadio Habibou Ka bi ñu teewal foofee ca Doha ba mondial bi tàmbalee ba léegi Gana Gueye bokk na ci jour sénégalais yi gën a taxaw yi dem ba jeex waaye nag carton bi mu am tax na du jonganteeg suñu kanamu Angleterre mu nekk na jour bi nga xamante ne bokk na ci ñi gën a xam football anglais bi. absence bu Gana Gueye nag nekkul loo xamante ne dañ koy xeeb lu loo xamante ne lu mag la Gana Gueye joueur bu mag la si équipe bi présence am si équipe bi dinañu manqué bu baax. ñàkk bokkam ci match bi nag euh, ba muyul équipe nationale bu Sénégal dina ko yëkk waaye nag bu fekkee am na joueur bi nga xamante ne war na ko mën a remplacer kenn la mu di Nampalys Mendy. am naa yaakaar ne Nampalys Mendy moom moo koy remplacer parce que Nampalys soo xoolee yàgg na ci équipe bi te titulaire yi la bokk match bi passé rek la footballul ku xam Aliou xam que ne tout le temps si expérience lay miser donc naa yaakaar que ne Nampalys Mendy Sénégal ma ñàkk na gànn ci kanamu Angleterre waaye nag am na espoir ngir mën a récupérer Cheikhou Kouyaté bi nga xamante ne tey ji daal dina reprendre entraînement bi lii. Sadio bi Ka ci loolee sax kon ki nga xamante ni mooy góor bi di Alfred Alfred Gomis moom nag nee na pare na rek eh, ci blaale boobu war a dox diggante Sénégal ak Angleterre te nee na ñoom ñi ne am nañu lépp li nga xamante ni mu ngi si ñoom ngir ñu mën a yegg ca quart de finale bi gagné boobu les matchs Alfred Gomis ñu teewlu waaw lu bëree bari nag ñu koy wax ci euh, journaux yi di yéenekaay yi. man nag euh, maa ngi ñaan tamit euh, anglais yi ñu xeeb ñu comme ni ko ñu bëri di defee loolu moom moo ñuy arrangé waaye nag euh, li wóor te wóor moom mooy joueur anglais ñoom xam nañu joueur sénégalais yi joueur sénégalais yi itam xam nañu anglais bu baax baax donc wax yu bëree bëri nag waxu taskatu xibaar yi la ak yu ni mel waaye daal mbir mi moom ci biir terrain bi la te xam naa ne moom bu nu nekkee ci biir terrain bi jàmbaarloo dëgg mooy am. tous les journaux, mais au noonu itam la ko ñaareelu vice président bu fédération sénégalaise bu football bi xamle moom nag nee na am na confiance bu baax a baax ci diggante Sénégal ak Angleterre mu ne kon Sénégal yi bu ñu footballee te ñu amuñu benn complexe war nañu mën a daan boobule dëkk Jibril Wade lay wuyoo ñu teewlu ko si njàppandalu Soxna Fall. Euh, fii moom fu mu yëg si rek xamal ne dëkk bu mag nga ndax euh, fukk ak juróom yi dëkk yi gën rëy. ci monde bi ñoo fi dajee mooy équipe bi gën a baax su yàlla dogal na nag Sénégal bokk na ci sant yàlla di ci di di di di ci gërëm yàlla bu baax a a baax li ci des mooy match ba nga xam ne waaye individualité rek ñoo ko ñoo ko mën a gagné fi mu nekk dafa ànd esprit d'équipe bi collectivité bi ànd bi moo gën a soxal lépp mooy li nga xam ne lu am aajo te bu ñuy wax ay individualité la ñuy wax mais Sénégal léegi bu koy wax collectif bi la ñuy wax ànd bi ñu ànd ak yàgg yu ñu àgg Euh, nekk ensemble loolu dafa lu am solo la ci équipe. di jaajëfal kon soxna Fall ak bi bu Kaaw ñoom ñu ñu teewal foofee ca Doha ca Qatar ñeel mondial 2022 bile ci boole mondial ba tey kon tey jii si dimanche bi euh, France war na laaleeg Pologne foofee ca euh, at Sumama Stadium. bu joyee démb nag ci euh, samedi gi Argentine moom moo làbbali Australie si ñaari bal ci benn qualifié ci quart finale ci quart de finale yooyu sax moom war cee laale ak euh, Argentine Argentine euh, moom Argentine war cee laale ak Pays-Bas Pays-Bas bi nga xamante ni ñoom ñoo dóor États-Unis ñetti bal ci dara. kon euh, Pays-Bas moo door États-Unis ñetti bal ci benn yéen ñuy teewlu ci la 89 point ñu wax ci wàllu licence de pêche yi nga xamante ni nii moo ñeel euh, secteur napp gi te parlementaire yi démb ñoom ñu bëri ñu bëri ci député yi ñu yëkkati ci kàddu wax ko ki nga xamante ni mooy jëwriñ ji ndax ne ñu lu suuxal euh, napp Sénégal licence de pêche yi ci la bokk looloo waral kon kii di jëwriñ gi di Pape Samba Mbaye bu mu jëlee kàddu gi indi na tontu euh, jébbal ñi nga xamante ni ñooy parlementaires yi di député yi gannaaw bañ ko doon nattal euh, budget ministère am boobu de moom Pape Samba Mbaye xam na ne Sénégal am na téeméer si ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay licence de pêche yu mu jagleel bateau Sénégal yi waaye itam ñaar fukk ak juróom yu ñu jagleel waa Union waaye nag mu ne lépp boo ko xaymaa warul toll rek ci téeméer ak juróom fukk licence de pêche yéen ñuy teewlu seen rajo leader ñu wax ci jaaykatu oto yi occasion yi nekk ci VDN bi ñoom nag lu ñuy naqarlu mooy yenn taxi ñuy teg seenum ndodd ne nag mënatuñ ko ba àttanatuñ ko looloo waral kon ñu bootu ci ab association di sàkku ci njiit réew mi mu indi ci saafara ndax ne ñu seen secteur ay ndaw ñu bëri ñu ngi ci di liggéey Mohamed Dieye ñu teewlay kàddu mooy seen njiit Sénégal mooy comme mu jàppale jeunesse bi te xam ni vraiment jeunesse bi moom mooy doxal réew jeunesse moom mooy doxal àdduna te Sénégal ku xool ndaw yi ak fii ci VDN bi bi fii booy xool minimum si ñu association bi 750 personnes mi ngi ci biir association bi tey jeunes yu mën bëgg li ñuy def lañ ba pare nangoo liggéey bu ñu sañoon nag état Sénégal gën ñu jàppale aussi tamit ci suñu activité ndax am na ay am nañ ci ay yoo xamante ni vraiment bu ñu sañoon état taxawuñu ci mi ngi mel ni lu jëm ci plaque garage bu ñu sañoon état jàpp ñu ci loolu ñi ñi ngi ñi ngi koy ñaan aussi tamit mu wàññil ñu taxe douanière yi ndax vraiment douane bi seer na trop dañuy jékki-jékki rek ñu ne yokk nañ douane bi yokk nañ li yokku nañ laa am na loo xamante ni bu ñu ko yokkee waxuma suñu bopp mais population bi pour ñu jot suñuy produit muy oto yi day nekk vraiment problème ñu wax euh, ca coow wala sax euh, laale ba amoon fële ci assemblée nationale ba waral tey ji ñëpp di ko ñu bëri di ko ñaawlu bokk na ci itam waa confédération nationale de travailleurs du Sénégal force du changement Baxaw Jong moo nekk seen njiit moom nag itam ñaawlu na ko ba fu ñaawlu yem ndax laale yooyee foofee ñu ne du palaasam rawatina nag muy woo moom Baxaw Jong pouvoir bi maanaam ñi nekk ci euh, donkaas gi ak it ñi fare ci opposition bi di kujje gi doon ay député ku ci nekkoon mu ànd ak daal ñu ngi ko xamle bañ doon amal ab seen assemblée générale Baxaw Jong ñu teew lay kàddoom. lu ñu bëgg moo di lii na arrêté dafay arrêté violence ak fu mu mën jóge ndax violence verbale ak violence physique benn la ki taxawal sa jigéen di ko saaga ay ndey di ko weq jigéenu biir bu am trois mois nga koy weq ci biir nga ne jigéen ñi dinañ ko mën a toléré duñu ko mës a toléré mu kon kon euh, Bakhaw Diong moom jiitee jiite CNTS FC doon wax wala sax addu ci euh, ab violence bi ñu nemmeeku foofee ca assemblée nationale léegi léegi ñu xoos wuute xibaar xibaaru biti réew. xibaaru biti réew. xibaar yi biti réew ci république démocratique du Congo lañ koy dooree foofee nag église catholique bi moo sàkku ci askan woo fay yeewoo ñu wàcc ci mbedd mi amal ab ngir euh, artu ci situation dëkk boobee rawatina si ñàkku kaaraange bu ñuy nemmeeku ci penku dëkk boobulee rawatina foofee nga xamante ne lu nekkoon ci ay laali ñu ko fay nemmeeku ñuy ñaaw li itam lu ñuy duppee waa M23 yi ñu nekk ci boobule dëkk rassemblement yooyee nag tey jii kon lay euh, doon foofee ca dëkk boobee yëpp rawatina. ca Kinshasa euh, foofee ca RDC Euh, soixante-deuxième ji juróom-benn fukk ak ñaareel bi lal bi boot euh, njiitu réew CEDEAO tey ji kon dinañ ko amal si dimanche bi fële ci Abuja nekk capitale bu Nigéria moom mi nga xamante ni di euh, président bu commission bu bees bi bu commission bi lee di Gambien Oumar Alieu Touré moom nag dina prêter serment waaye nag ci appui laata loole nag dinañ ci waxtaanee foofe ci ay poñ yu bëri ñi nga xamante ni ñooy médiateur CEDEAO demoon fële ca Mali Burkina Faso ak ak Guinée mu ñetti dëkk yi nga xamante ni dañ fa amoon dañ leen suspendre ndax coup d'état bu fa amoon ñoom nag dinañu wax li ñu fa jëlee jébbal ko euh, commission yooyu président commission yi su ko defee nag ñu artu ci euh, lu ni dinañ ci waxtaan waxtaani itam lu jëm ci wàllub monnaie unique bu ñuy amal ci espace régional bi xeex itam lépp lu jëm ci wàllu terrorisme doon na ay poñ yi nga xamante ne ñoom jiitu réew